tout d'abord euh, dama bëgg a indi éclaircissement newul euh, son excellence président la république Macky Sall moom moo toxal élection yi déedéet président amul prérogative toxal élection waaye ñëpp gis nañ ne euh, conseil constitutionnel nga xam ne ñoom ñoo war a doon arbitre ci élection yi ñu jëm waa député opposition surtout PDS ñoom ñoo leen tuumaal ne dañoo dañ leen guerre wax dëgg yàlla lu si tollu institution bu mel noonu di conseil constitutionnel suñ leen tuumaalee tuumaal yu tuuma yu grave yooyu je pense que luy xel mooy que ñu seetal leen ñu leeral mbir mi te ñoom si seen bopp den wax ne ñoom den bëgg mbir mi leer nañ mm-hmm. nest pas waa PDS sam taxaw ne ñoom aussi dañoo am ay preuves donc ku nga xam ne moom mooy arbitré fekkee ne den ne den la ger rek wax dëgg yàlla fekkee dem nañ élection ci anam yooyu ëllëg su lépp lu xew ëllëg ñu ñooy doon les responsables. mais est-ce que yéen maanaa ñu jàpp dañ leen a ger euh, ñu toxal élection bi pare war la dernier mot euh, leur revient jamono ji parce que ginnaaw le président ak sa déclaration ginnaaw l'Assemblée nationale actuellement ñoom ñoo yor yëf pour xam ba xam effectivement dañ koy valider wala déet. man lu ma wax lu leer la dama ne waa PDS ñoom ñoo ne conseil constitutionnel nga ñoom dañ leen guerre moo tax ñu écarter seen candidat bi di Karim Wade Karim Meïssa Wade. Mhm. te aussi lu tey xel mooy que dañ ne Karim Wade dañ ko écarter parce que dafa am double nationalité. n'est-ce d'accord mhm. mais de la même manière am na candidat bu nga xam ne. moom aussi dafa am double nationalité ba pare valider neen candidat mais loolu nee nañ problème devait être réglé après la présidentielle on devait juste annuler le nombre de voix yi mu am ak position bi mu am ci ci ci classement bi sëñ bi ça devait se régler ainsi sëñ bi kon xanaa dañuy wax ne Karim Wade aussi waruñu ko écarter dañ war a xaar ba élection yi weesu non Karim y a eu recours ñu xool bien avant la pas eu de recours alors na yow looy wax yow yaa ko wax. non waxuñu ko en fait mais waa PDS. amul mais waa PDS ñoom nanguñ loolu ñoom dañ ne Karim Wade wax dëgg yàlla kenn waru ko écarte te polémique yu toll noonu wax dëgg yàlla je pense que balaa ñuy dem élection loolu moo xewoon Côte d'Ivoire conseil constitutionnel des fois fekkee ñëpp ànduñu ak moom rek ëllëg jéey mun na am si réew mi. te son excellence son excellence mais mais mais pas tout bu toll nii loolu mosul am.